بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ni tanzilul kitab lii di wàccak téere bii day tanzil mooy lu ñuy wàcce nank-nank min allahi al aziz al hakim mi ngi jóge ci yàlla mi not lépp waa ji di aji nekk koo xam ne muy aji xereña ja lu ne teg nu ko fa mu war a tege inna anzalna ilayka alkitab ñun ñoo wàcce ci yow téere bi anzalna ñoo ko wàcce benn yoon bil xaqi ci dëgg faabudillaha muxlisan lahu diin jaamul yàlla nga sellalal ko ñeel ko diineem ala lillahi diinul xaalis ama ndax nekkul ñeel yàlla diine bi sell walladina taxasu min dunihi awliya ñi nga xam ne nag ñi ngi jël gannaaw yàlla ñu ñuy féetewoo soo leen laajee li ñuy wax maa naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun kat jaamu wuñu leen lu dul ñu jegeel ñu ca yàlla zulfa la nga xam ne mooy ak jegeel inna allaha yaxkumu baynahum sunu borom yàlla day muy attee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun ca la nga xam ne ñoom nekkoon nañ ci di ci juyoo inna allaha la yahdi man huwa kaazibun kaffaar yàlla day du jubal koo xam ne fenkat la weddikatu xiiwal la mi kaffaar law araada allahu an yattaxida walada su yàlla bëggoon ci jël doom rek lastafa mimma yaxluqu ma yasha kon doon na tànn ci lim bind la ko ca soob subhaana sell ñeel na ko huwa allahu alwahidu alqahar mooy yàlla kenn ki nga xam ne moo not lépp ci kàttanam xalaqa alsamawati wal arda bil xaq moo bind asamaan yi ak suuf ci dëgg yu kawiru leyla ala nahar mooy muure guddi ci kaw bëccëg ay moo koy lëmas ci kaw bëccëg wa yukawiru nahaar ala leyli di lëmas bëccëg ci kaw guddi wa saxara shamsa wal qamar moo tàggat jant bi ak weer wi kullun yajri li ajalin musamma lépp ma ngay dox jëm ci dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare ala huwa al azizul ghaffar alaa la fa am kay huwa al aziz mooy ki not lépp ci kattanam al ghafaar ki sax di jéggale ay jaamam i ngi noonu bokk li mooy suratu zumar suñu ay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def balay tëdd mu daan jàng suratul isra ak suratu zumar donte ni ñaari saar yooyu yépp suñ demee suñ borom ma ngi ñu cee wax gëneelu taxaw guddi naafila da ngi noonu aman huwa qaanitun ana alleyli fi zumar ak wa min alleyli fa tahajjad bihi naafilatan nag ala kulli xaal su ne Aïcha nee na kon yonent bi daana ko jàng suñu borom mu ne lii de tanzil la ni ñu leen ko waxee sànq anzala loolu inzal boobu day indi benn wàccaay amma tanzil mooy lu ñu tegale mi ngi jóge ci yàlla kan mooy yàlla mooy al aziz comme nañ leen ko waxee woon sànq waaye mooy al hakim lu ne teg na ko fa mu ko war a teg loolu tax jurit bi moom day xam ni inna hadha al quran yahdi lillati hi aqwam suñ bëggoon jàmm ci suñu bopp dañuy jëfe rek la alquran wax wallaay attet alquran rek mooy dëgg tere yi alquran ba ko rek mooy dëgg digale alquran def ko rek mooy dëgg ndax ki ko wàcce mooy alxakim lu nekk moo xam fa mu war a tege mu teg ko fa suñ borom mu ne maa ko wàcce ci yow ci dëgg ay amul lenn lu ca manki amul lenn lu ca yokkoo lama la ca sant nag la ca gën a am solo mooy jaamul yàlla sellalal ko diine ca mbokk loolu moo taxoon yàlla yónni ay yeneen ca mboola sel wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu taaxut mu ne mboolem yeneen yi ma yónni woon seen mission principale moo nekkoon fexe ba nit ñi jaamu yàlla bañ ko bokkale dara jullee koor ak zakat ak ajat yépp mooy ngir rek nit ñi mën a jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara jeex na yow nag yaa koy jëkke mooy fa'budillaha mukhlisan lahu din gannaaw ba it sunu borom ne waaw ndax ñeelul yàlla diina ju sell ju àndul ak benn bokkaale ana kay sunu borom mu ne ana aghna shuraka'i an shirk ku ñuy bokkaale rek maa ko gën a woomle ku ma bokkaaleel ma bàyyi koog lan lan ñuy bokkaale amma ñi nga xam ne ñi ngi bokkaale ak seen boroom di jël ay xërëm di jël ay malaaka ñenn ñi jël ay sëriñ teg leen seen diggante ak seen boroom soo leen laajee li ñuy wax mu ñun xam nañ ne yàlla yàlla yàlla moom moom lépp bëgg a jege yàlla moo tax ñu jël xërëm yi bëgg a jege yàlla moo tax ñu woo malaaka yi bëgg a jege yàlla moo tax ñu woo sëriñ si loolee mbokk da ngay gis mooy njuumte bu rëy boo xam ne nit ñi tabbi woon nañ ci gépp yàlla commencé yónni ay yonente ba tey donte ne loolu mbokk suñu borom yàlla moom nee na yonente yàlla bi wa ida saalaka ibadi anni lu ci yàlla teg fa inni qarib yàlla ko jega la aajowul ko lu koy jegeel loolu xel mënu ko nangu moodu mee ca fond jàkka ja kaay dettalil ma suñu suman portable bi ñëpp dañ naan mën kii daa dof am déet ndax képp koy woo yàlla la ko gën a jege képp koy yaakaar yàlla moo ko ëpp yërmande moo la gën a jege moo la gën a xam fàttalikul keroog bi nga nekkee sa biiru yaay kan nga woo woon mu jege la yàlla mu may la ay bët may lay loxo may lay tànk day ak yàlla rek dafa woon a waay kon bi nga ñëwee ci kaw suuf suñu borom mu ne samay jaam buñ ma lay laaj yàlla waxul sax yonent bi waxal ndax bu waxee sax dafa mel ne am na intermédiaire def moom moo waxal boppam directement fa inni qarib loolu tax mbokk da ngay gis ñu ne ñii suñu wasiile lañu booy wàcc ci turam ngay waa mooy sa yaakaar àdduna mooy sa yaakaar allaaxira mi ngi noonu rek la nga dégg ñu ne ñaan gi yàlla na ko yàlla jël teg ko ci loxo suñ caam mu teg ko ci loxo suñ sàmm mu teg ko loxo yeneen ci bi kasa mbokk yooyu ay mbir la yoo xam ni dafa gudd suñu borom yàlla ku ñu jegale neen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du loolu nga wax mooy julli jeex na amul amul intermédiaire yàlla iyaaka yow mii di ñu dégg di ñu gis yow rek la ñuy jaamu ay yàlla iyaaka yow mii dañuy dégg di ñu gis iyaaka nasta'in jarul doxale kenn ci diggante bi kon wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa sunu borom mu ne alaxira dana atte seen diggante ci li nekkoon di ci juyoo ak dëgg di ko juyoo ak jullit ña ca lañ leen doon woo ci tawxid borom boobu subhanahu wa taala nag ne du jubal fenkat te ki gën a mën a fen ci mbindaafono yàlla yi mooy ku wutal yàlla bokkaale bokk yàlla amul bokkaale gannaaw ba kaffaar mooy ki weddi xéewal ndax yàlla bi mu bindee doomu aadama xéewal ko lépp lam waroon a faye yàlla mooy mu jaamu ko bañ koo bokkaale ak dara am déet ki tant que mi ngi dem di ko wutal bokkaale rek mooy kooku kafaar la mooy muur na xéewalu yàlla ya borom boobu nag am na ay jaamam yu bëri yoo xam ne dañ koo sosal ne am na doom rawatina ci ñi yàlla yónni woon suñu yonente muhammad alayhi salaam muy waa makka ñoom dañ ne malaaka yi ay doomi yàlla lañu chrétien yi ne isa ibnu maryam doomi yàlla la usayru yi yahud yi ne doomi yàlla la suñu borom ne yàlla mu ne su ma bëggoon a jël doom am naa ci samay mbindaafon loo xam ne mënoon naa caa tànn def ko doom waaye loolu sell na subhanahu huwa alwahid mooy kenn mbokk doom mi ngi jóge ci père am déet suñ borom yàlla nag laysa ka mislihi shay dara melul ne moom kon nu muy amee doom dañuy loolu loolu kon dañoo war a bokk na ci musiba bi gën a rëy bu doomu aadama di wax mooy diw doomi yàlla la comme li ngeen di dégg ci chrétiens yi di ko wax le père le fils ak le saint esprit suñu borom nee na bi ko nit ñi waxee asamaan xaw na xotteeku suuf xaw na xar montagne yi daanu budul woon ak malaaka yi ñooy nekk di sabbal di ñaan yàlla jéggal waa suuf gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala dañuy wax kattanam mbokk sa borom yàlla gisoo ko sa borom yàlla déggoo ko waaye xoolal xoolal génn ci asamaan bi nga xool asamaan bi la tiim ak li ci nekk ci ay biddiw li nga ciy gis mi ngi lay fàttali kii mooy sa borom yàlla moo ko fi def moo ko créé Washington defu ko américains yi defuñu ko chinois yi defuñu ko sa borom yàlla moo bind asamaan bi ak biddiw yi ci nekk nekk des milliards et des milliards nekk fi des milliards dana yàlla xam gannaaw ba mooy ki bind suuf ak li ci nekk lépp géej yi montagne yi garab yi lépp xamal ne suñu borom yàlla mooy ka moo ko bind bi mu ko bindee da ko bind ci dëgg ay xamal doomu aadama yi dara tëwu ko moo tax mu ne la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nas ay yéen nit ñi kàttan gi bind asamaan ak suuf moo gën a màgg ngeen dem a dekkal leen gis ngeen akbaru min xalqi nas borom bi it def ko ci dëgg ngir nit ñi mën cee xamee seen kattanu borom seen màggaayu borom inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wa nahar la ayatin li ulil albab nit ñi bu ñuy xool ci ni yàlla bind asamaan ak suuf xool ci temps bi xool ci espace bi daan ci gis kattanu borom bi ak xikmaam ak yërmandeem borom boobu ne mooy jël guddi daal di koy lëmas ci kaw bëccëg kaw wara mooy la ngay muur di ko laxas comme boo jëloon kaala ni nit ñuy kaalawoo te loolu it aaya la yuy saxal ne ndekete suuf bi dafa wërmbalu ay dafa rond ndax loolu moo tax ñu koy man di laxas loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo tax muy indi bëccëg di ko muur ci kaw guddi masalan tey jii ñun dugg nañ suñu guddi mais boo téléphonoon fi mel ne Amérique ba tey ñoom ñi ngi jàkkaarloog jant bi mais guddi gaa ngi dem di muur suuf di ko muur di ko muur di dàq bëccëg bi dàq bëccëg bi dans quelques heures jant bi fenkee na fële ci Japon gis ngeen su ko defee bëccëg bi commencé dàq guddi bi yu kawiru layl alal nahaar way kawiru nahaar alal layl loolu di ay mbir yoo xam ne da ngay gis yow julit danga cee war a bàyyi xel gis nga suñu jaamu yàlla yi suñu borom mi ngi ñu ko tënkal ci guddi ak bëccëg am de gars yi bu bëccëg bi dee xar commencé bëccëg mooy fi fajar di xare nga xam ne guddi jeex na di fa la julli fajar di amee kay julli fajar am na jant bi fenk dem ba tiim ñu digg asamaan suñu borom ne julli leen mu dem bay jeng dem dem di soy suñu borom na julli leen muy tàkkusaan su demee ba dung rek guddi ñëw na automatiquement mun a julli leen kon mu gis bëccëg bi ni mu ñuy defee weeru koor naka noonu mooy jant bi moo ñuy wan kañ ngeen di commencé woor kañ ngeen di dog gannaaw ba weer bi weer bi moo ñuy wan la nga xam ne mooy jaamu yàlla yi fu muy commencé masalan tabaski gi dañ ne tey ñi ngi nekkoon juróomi fan tabaski lu ko waral parce que dañ ne ajjuma ci guddi kat weer yi feeñ na kon ñu ne samedi mooy premier jour zul hijja nga topp ko ñu ne kon ah bu dellu si di juróom-ñett te juróom-ñeenteel ba mooy yow mu arafa fukkeel ba muy altine kon mooy bisu tabaski mi ngi noonu ñu dem ba weer wi dem ak a dem ñu ne ah tam xarit ñëw na ñu dem dem dem ak koor ñëw na kon jullit da ngay gis ne yow yaa ngi nekk en rapport direct ak lëli wal nahaar mu lay wax say waxtu julli ashams wal qamar di la wax itamit la nga xamee ne nii mooy sa yeneen jaamu yàlla yépp borom boobu subhanahu wa taala nag ne lépp mi ngi daw jëm ci dig boo xam ne yàlla tudd na ko ba pare mbokk jant bi suñu borom dana ko mas a dindi weer bi suñu borom mas a ko dindi su ko defee guddeeg bëccëg dootul am kan mooy tëral règle boobu di ko contrôler ca lenn loo xamee ne nii retard wala avance du ci am suñu borom mu ne muy al aziz aziz boobu de xanaa kon war nañ koo ragal waaye ku ko moy nooy def suñu borom ne waaye nag mooy alxafaar ay sama jaam bi nga xam sama màggaay loo ma mooy mooy tuubal dellu si ci man heure boo tuubee rek ma baal la yal na yàlla baal ñu suñu bàkkaar ya ñu xam ak ya ñu xamul yal na yàlla yërëm ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wala kulli xaal gañe woon na ci carte yàgg na ay at léegi naka lay def almuhim mooy na fexe góorgóorlu alal jooje mu def ca lu baax di def lu baax ba yëg ne au moins lam gane woon ca carte ga delloo na ko ca la nga xam ne mooy jëf ju baax ndax lekk gam ko lekkoon warul woon bu doon te ne ca tàng tàng ba la ko xamoon da koy daal di bañ a lekk dara jël ko lépp delloo ko ca la nga xam ne mooy fa ngërëmal yàlla nekk amma yàgg na gañe woon na ca cent mille na fexe daal ba xool ci place yi nga xam ne nii jàpp ñu ne ngërëmal yàlla ma nga fa mu fexe ba sarxe ca lu tol noonu lu mu néew néew mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam bismillah naam vendredi bi ak samedi bi ku bëgg mën na ko woor bal fukki juróom-ñeenti fan yépp ku bëgg mën nga ko woor juróom-ñeenti fan yi ubbi zul xijja yépp ay bisi koor la mi ngi noonu kon woor samedi ba dara néewu ci donte ne ne am na ay nit ñuy taral ci ay fatawa yenn yu ñu dégg rawatina ko mel ne Cheikh Nasir Albani yal na yàlla yërëm ko ñoom dañuy dañuy dem ba nan bisu samedi bu nekkoon arafat sax doo ko woor waaye ala kulli xaal mbokk loolu la ci gën a dëgg doomu ca ay borom xam-xam yi toll na moom wax ko lu mel ne ay Xuseymiin ak Dumbaas ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moo di ne lañ cay bañ mooy koor goo xam ne yaa ko jublu mais bu dee koor goo xam ne yeneen ci ci joxe ndigal mu nekk koor sunna su boobaa dafa dëppoog samedi ak ñàkk dëppoog samedi moo ca bokk yem dafa dëppoog àjjuma ak ñàkk dëppoog àjjuma moo ko bokk yem insha allah boo ko bëggee woor woor ko mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam bismillah ayaamun maalumaat mooy fukki fan yu ubbi tabaski ayaamun maadudaat mooy ñetti fan ya topp ca tabaski loolu la ñuy tudde ayaamun maadudaat amma maalumaat mooy fukki fan yu ubbi tabaski ñu ngi noonu non ah. ndax mën nañ ko. tabaski ndax mën nañ koo rendi guddi ku rendi guddi it am nga tabaski waaye la gën mooy bëccëg yi lañ ca taamu. bu dee lañ ca lañ ca tàmm dëgg-dëgg mooy ca bëccëgee lañ koy def waxuñu nag ku ren di guddi amoo tabaski maadaama dugg na ci ñetti fan yi duñu wax na amoo tabaski waaye daal nañu xam ne lañ ca sunaal moo di ne ne bëccëg lañ ca taamu allahuma lulul yow amoo benn pexe benn pexe pour rende ko bëccëg su boobaa rende ko guddi dara ñëwul ca mais boo amee pexe moom rende ko bëccëg lañ ca taamu naam ah ah naam ala kulli xaal ndax nit ki am na droit xaar ba ca suba ga wala troisième jour ba am na ci droit waaye nag ngënee lañ koy raw yonent bi alayhi salaam salaam nee ne kenn defulul yàlla yow mu naxra ci bisu tabaski bi nga xam ne mooy bisu tabaski bi la gën ci tour deret ca sunu borom yi mën a fastabiqul xayraat kon boo amee kattan mën a rey ci bisu fukkeel ba loole moom bu ko yeexee bisu fukk ak benn am naa nag bu dee ngant dafa am ci bisu fukkeel bi amoo am nga fukk ak lu benn rayal fukk ak ñaar rayal wala léegi nag it xëy na mën na dem ci dëkk yow jaxasoo comme yu mel ne Sénégal man kat maa ngi ci xëy na benn kër goo xam ne tey jii su ma rayee ci bisu fukkeel bi mën na maa jur ak noonoo goo xam ne danaa ci noonoo sama digganteeg samay mbokk loolee ci bisu fukkeel ak benn ba loolee bisu rey la nga bàyyi ba bisu fukkeel ak benn ba ngir daw noonoo googee nettali nañ ma benn histoire boo xam ne ay frère lañu kenn ki dafa jël xaram ne tey la tabaski da koy rey frère bi na ko kenn du fa rey xar mu génn pistolet ne ku ma tee rey xar ma rey la ba dëkkandoo yi ñoo ñëw xam ngeen loolu mbokk comme sunna nee na ñetti fan yëpp rey la bala nga yegg foofu moom nga bàyyi bu suba rek nga doog a rey waaye bu benn problème amul moom rey ci fukkeel ba moo gën naam wallahu alam naam bismillah bismillah waaw bis- waaw bismillah waaw ah ki amul xar mu lépp lépp mbokk mooy lépp lu doomu aadama bëgg te mënu ko mën na ko lekk yaa ngi sa kër yaa ngi sa njaboot tey jii masalan weer wi dee fayuñu la sa njaboot a ngi toog mën ngaa dem sa dëkkaloo mu abal la nga dem jënd xar rey bi su tabaski bi boo fayoo dem fay ko yaakaar naa amul benn xel borom xel bu rafet buy ban buy ban loolu kon képp koo xam ne yaakaar nga loo fayee tabaski amuloo ko mën ngaa dem lépp xar rey sa tabaski doonte ne amoo ko woon waru la woon waaye nag boo yaakaaree loo ko fay lépp ko ngir bégal sa njaboot loolee moom da ngay gis ne lu lislaam sopp la wallahu alam naam bismillah waaw mu ne waaw da ngay wax benn bi rek parce que dafay dañ ci waaw ndax moom dana ndax dana ko da- dana ko metti ndax safara dana ko metti safara ala kulli xaal dàggasante waa safara da ngay gis ne buñ dàggasante ba pare ñoom ñépp dañ dëkkoo dellu ci moom ne lépp saay saay bee ñu ko yóbbee waaye suñu borom bi nee na leen hey sax man lu wax fala talumu lii wala mu anfusakum seytaan dana taxaw ne leen hey bu ma kenn xas bu ma kenn yedd bu ngeen dee xas xas leen seen bopp amoon benn kattan ci yéen illa an daawtukum fastajabtumuni damaa woote woon rek ngeen ñëw gaa yi waajo yi woote fii am na ay club am ne waaw couple couple cinquante mille nangam nangam dafa ab annonce am ña fa dem kay duñ mënuñu xas ko dul seen bopp waajo ubbi fii ab bar kalandoom di jaay sangaraam ka dem ba foofu naan fa kenn du mën a yedd kenn moo tax seytaane day dégg xasaate yépp yi ko nit ñi xas waaye suñu borom moom it nee na dana riposte waaye nag xamal ne mbokk kuy metti mbugal ci sawara seytaane la gën a metti mbugal bal mboole mbugal bu yàlla di mbugal waa sawara lépp dana ko multiplier dalil ko seytaane lu tax mooy amul ku dugg seytaane ku amul ku dugg sawara lu dul moo la fa dugal moo tax suñu borom ne la am la an na jahannama minka ci moom la jëkke wa miman tabia ak minhum ajmain ak ñëpp ñoo xam ne topp nañ la mbokk mi ngi noonu waaw xam naa waaw waaw bismillah waaw waaw ndax yonent bi alayhi salaam da ko doon naafila nañu sunu yaay Aysa waxee da ko doon jàng yonent bi alayhi salaam ay naafilaam da daan tëdd ba ganaar gi sab ca la daan jóg di naafila kon da ko doon jàng avant muy tëdd mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujj ci mbokk bi yëkkati nii rek bismillah waaw waaw
mais ak waa ak waa culture culture boobu maanaam bu benn benn bassin di ko yar ay jur buy
loolu moog élevage yem rek nit ki yar ay jënam ak yar ay xaram ñun ñëpp a yem suñu borom moo ñu tàggatal lépp lu nekk ci kaw suuf may ñu ko doomu aadama loo ca mën a yar jëriñoo ko loolee da ngay gis na njëriñ dana ci nekk kon incha allah bokk ñu ngi xam ne tabaski gi mi ngi amal ci ni incha allah kon àllarba ji ci tegu mi ngi bokk ci ayyaamul maadudaat ci tabaski yi kon duñu mën a nekk di tafsir ndax mbokk yi nga xam ne dañuy dem fu sori ak yu demee noonu te même bu dul woon lool it yeneen ci bàyyi salaam nee na gisu zikrullah la ak gisu lekk ak naan xam naa yëpp ñu dëkk ci gox bi ñu ngi fas yéene taxawal fii julli tabaski bi incha allah altine ci 9h15 di ñaan yàlla nangul ñu nangul bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain